xew na ci réew mi ñu daal leen ko indil tey nag xew-xew bu mu ngi fii nga xamante ne mooy caaru géej quartier bi nga xamante ne mooy quartier Diadji Sall xew-xew bu doy waar bu fi am ku ñuy wax Baye Cheikh Diop âgé de 19 ans moom lañu ne moom la fi moroom moolam ren di ren bu doy waar boo xamante ne bu métti lool lool la fi ñu taxaw nag ñu fas yéenee dugg fi nga xamante ne moom mooy fii ci biir kër gi xool mbokk yeek xarit yi waajur yi xool luñ si mën a am waaye fii nga xamante ne mooy géej gi nga xam ne fi lañ ko rayee fi ñu taxaw juste juste juste fii ñu taxaw fi lañu ko rayee deet ji sar ndax xam ngeen ne géej gaa ngi ni kër gaa ngi nii mu nekk loo xamante ne lu metti lool la lépp xew fii si biir caaroy géej mu nekk xew-xew boo bu metti lool la ñu fas yéene dugg nag xuus xool mbokk yeeg xarit yi ak am di jàmm yi nan la ñu dunde mbirum Baye Cheikh moomu nga xam ne moom moo fi am mu nekk lu metti lool loolu voilà mbokk yi ñu ngi nii yegsi nañu si kër gi ñu ngi taxaw kenn koo xamante ne moom euh, euh, doomu Caaroy la kenn dootu ko présenté muy Ousmane Diop Ousmane ñu ngi lay nuyu di la massawu xew-xew bi nga xam moo am si gox bi te nga xam ne nee nañu kii ñàkk bakkanam sa jarbaat waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yent bi ngi sant ñëpp ñu ngi lay fay tamit nuyu bu baax a baax waaw liñ ci mën a wax daal du bari ndax euh, xam naa ni wax waxee la rek ndax fi mu toll ne lii am am na ba pare ndogalu suñu borom moo ñëw yàlla dogaloon ne xale bi fii la fii la ko yàlla di jëlee bakkanam ci suuf si waaw keneen ki si topp tamit noonu la même chose ñoom ñaar ñëpp ay xale lañu mais dañuy gëm ni ndogalu suñu borom la kon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax ci xalab kenn du ci duñ ci xas kenn suñu borom lu mu dogal ci doomu adama rek loolu am ndax caari géej la amee te lépp fi lay xewee. ñoom ñaar ñëpp caari suñu jabaar moo dëkk caari géej mais kenn ki daf mool la bu fi ñëwoon di campagne si. waaw Fass booy dëkk daal lan wax waaw. non man ci kër ga laa toog rek di am lu may liggéey foofu ñu ooma téléphone te ki ma woo ma nga biir géej xam nga ki nekk biir géej yéeg li nekk fi te man yëguma ko man xam man du ma génn bi ma ko waxee rek gëw ma ko nag ma génn daje keneen mu wax ma ko ci laa ñëw nag tiim xale bi fii ma doxantu laaj ana kenn rek ñu ne ma nga fële la temps may àgg ci moom bay wax ak moom bay génn ndekete moom tamit xale yi def na ci moom loo xamante ni loolu moo neex yàlla daal waaw. noo ko trop. dañuy métti tamit ndax xam nga ñu tiim sa jarbaat wala sa doom wala sa rakk def ko jëf ju ñaaw jooju dalay lay métti mais nag doomu aadama nag lépp lu mënti xew rek da ngay delloo sa xel suñu borom ndax suñu borom ruuye ruuye gépp moo ko yor ku nekk am na fu muy jaare sa bakkan métti na nag ndax wax dëgg yàlla xam nga xale bu tuuti war a remplacer baayam muy xale bu tuuti di jóg waar du tabaski kër papaam sama kër lay tabaskee sama rakk yeeg yëpp moo lay feesal seen xar yi mais bu ñu ko déggee tamit metti na trop mais dañuy delloo suñu xel daal si amoo fu dëgg yàlla mi ngi fi soog moo tax mu daal ci doomu aadama yi. waaw ñu yokk mbokk ñun ñëpp. ngi noonu di nijaay si biir ñu daal di xuus nag dugg si biir jéem xool yaay ji ak papa ji ak euh, mbokk yi daal ñu ngi si mën a amee rek ñu expliqué ñu mbir bu Ousmane Baye Cheikh Diop moomu nga xamante ne moom moo fi ñàkk bakkanam si anam bu doy waar ñu ngi toog nag ak ñenn si membre famille bi xanaa ñu laajteen rek ñoom itam nan la ñu yëgee xew-xew bi soxna si maa ngi nuyu. salaamaaleykum lay fay. Euh, ñu ngi sant bu baax a baax ki gaañu di doom ci yow nan nga yëgee xew-xew boobu. xanaa metti rek mun ko metti man maay fële laa dëkk Paal fa laay sëy toog ba yàgg rek sama téléphone ma xool ko ñu envoyé ma vocal sama yaay ne ma doomu ay dagay dañ kaa rendi ma ne ko rendi mu ne daal lii laa ci am ma xëy jóge fa nag dëpp boobu nag ma am lu ma metti daal démb laa ñëw ci suba si ay 8 laa fi agsi ñëw mu nekk tiis bu metti ci man. ndax maag yaayam ñoo bokk benn baay sama rakk la ñoo bokk benn baay maag yaayam mi sama rakk ji sës ci man xale bi encore sama doom la nekk ak sama rakk bu góor tam jarbaatam la mais dafa takk ci moom foo toll rek muy maam Ball la dafa takk ci moom wallaahi ñëpp moom lan xalaat démb affaire bi metti ñu nag mu nekk tiis bu metti bu metti ñu ñaan rek yàlla na fi yem ndax xëñ na yàlla loolu tuddoon loolu la yàlla tuddoon ni moo koy yóbbu ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan rek yàlla jox ñu xolu muñ ak mboolum jullit man tantaam laa maa yaayam ñoo bokk ndey ak baay waaye daal bi ma yëgee affaire bi métti na lool ba ca kanamu yàlla man muy fanaan ak yaayam xam naa ne metti na ndax buy daw di dem man maa koy dëral ñoo fay fanaan bokk ak moom fanaan ba doom di deewee ba tey waaye metti na lool deret ji da ngay dégg way rendi na ko way rendi na ko xam nga ne lii lu metti la jur sa doom am ci yaakaar ñu xëy rayal la ko ci nii maali foro nii metti na lool ba ca kanamu yàlla metti na loolu nan ko lool wax dëgg yàlla wallaay metti na lool sant yàlla. yow mi bokk ak yaayam ndey ak baay di gis yaay ji situation bi muy dund yow mi nga xam ne yaa koy assister rek yaa ngi koy yëg. waaw maa ngi koy yëg bu baax a baax bu defee noonu daw ñun ñëpp ñooy daw topp ci mu rek naan rendi nan ko rendi nan ko di daw di dem ñu wut ay tëpp tëppal di defar metti nan ko lool te moom moo jàppale yaayam xale la xale bu am yërmande xale bu xale bu juddoogul am yërëmande mooy xale bii ku yërëm yaayam waaw di jàppale yaayam di jàppale baayam waaw metti na lool nag foo mu mati am waaw metti na lool wax dëgg yàlla metti na trop. metti na man 6 heures daal la man Cambérène laa dëkk rek ñu woo ma téléphone ne ma doomu Aïda Gaye bi de rendi nañu ko tefes ma ne ko rendi ñu ne ma waaw. ci laa bëggoon ñëw ci guddi gi xale yi ne ma guddi na yaay guddi na guddi na bàyyi ba fajar fajaree rek man laa daal di si ñëw waaye daal metti na moom xale bu xam ne da daan dem géej du dimbale yaayam benn néeg boobu nga dis néeg néeg bale moom lay dank lu koog ñëpp benn néeg macha lu yàlla xam doy na xale bi di daw di dimbale yaayam ñu reyal ko yaayam metti na man mii di wax ak yéen man mii di wax ak yéen man tim fanweeri at sereen sama borom kër ambassade lañ ko reyee Espagne Corniche gardien bi ñu fi reyoon at yooyu sama borom kër la di suñu ambassade Corniche Fann waa Fann di fan ci ginnaaw noonu ci ambassade bi foofu la foofu ñu reye woon sama jëkkër 9 heures 8 ñu woo ma téléphone Modou Niang la tuddoon man ay Niang laa ñu xëy na ma sa jëkkër rey nañu ko waaw ba naga du suñu dara ba naga fii ñu toll du suma dara fanweeri at net la parce que ku fi bàyyi woon euh, xale la woon mi ngi doon nàmp waaye mu ngi jàng ministre amuñu si dara du suñu dara du suñu dara. mel ni suba bi dafa beesaat si yow. waaw joo man nekkuma nekkuma nekkuma metti na si man parce que dunde boobu dunde boobu ñu doon dund moom laa dunde ak sama goro sama doom bu jigéen taawam bu jigéen sama taaw maa sëgol tàppe mooy accident boobu nga fi góor ñaari euh, taximaan yi di xeex te kenn ki jam maroom mi kooku tim sama doom moo doon jabaram booba sama goro la kooku. mooy bi ñu jamoon balu pistolet. ci marché bi kooku sama euh, doom la ku jigéen ki sama doom la booba ñu ngi ko kay soog a may mu ëmb ëmb ñaari weer doom ji ba mu juddoo muy jigéen alsaan njonga lañ ko tuddee waaw. ñu maag maag sama borom kër bi ñu dundee loolu teguñu si at ñu rey Modou Niang sama jëkkër waa ñu tegati ci kii metti na nag di suñu dara kii nag metti na yorewul amuñu dara yaa ji quatre heures de matin lay xëy di jaay jën papa jee nekk noonu papa ji moom ngeen doon wax waaw xale bi doon dem di dimbale yaayam ñu rey ko loolu moom moom fan yëpp dañuy tëye fan yëpp dañuy tëye xale bi yaay ji woy rey na ko way rey na ko way rey na ko rey na ko waaw yaa jàng sa néeg ba génnoo sax tey waaw waaw. mu nekk lu metti yaay parce que li ngay wax nii nga dund ko sa borom kër dund ko ak sa goro dundaat ko tey ak sa sët mu nekk ñetti. metti na man man man damay eh, jaay jën ma jaayu jën du ma lekk. xam nga wax bu ñëwee ñëw na rek man damay ñafe di liggéey di jox samay doom ñu lekk am lii am na ba pare damay jaayi jën di jox xale ñuy lekk waaye kiitim nii ñu ko def metti na metti na sama sël la xale bu jigéen bi mag yaayam ñoo bokk ndey ak baay waaye yaayam nag moo ma yar man caare géej laa yaroo waaye man Cambérène laa dëkk kàcc njaga mbay waaw kàcc njaga mbay laa dëkk ay dañang laa tudd sama jëkkër ju ñu rey ki Modou Niang la tudd waaw am na fanweeri at na waaw moom alsaan moo gën a njëkk a gaañu Modou waaw ba ñu reyee alsaan teguñu si at ñu teg si Modou Modou moom ambassade lañ ko reyee waaw yooyu yëpp ba tey enquête bi kenn gisu si dara. man gisuñu dara. dara. sant yàlla rek. waaw metti na waaw. dellu di santaat yàlla bu baax a baax julli ci Seydina Mohamed waaw sant sunu jur bu baax a baax baax a baax ndax bu dul woon ak ñoom tey ji ëllëg lii nii yëpp tey du am bay xew waaw bañ koy fàttaliku ñu ngi sant dëgg la sa doom ñàkk bakkanam si anam wu doy waar noo ko yëgee yow en tant que jur yi nga xam ne yaa sukkoon. dëgg la man bala may tàmbali nii sax man defe naa bi ma la mujjee gis nii di la seetaan nii ci télé nii. loolu defe naa ne sax matul sax ay ñetti fan xaw ma ñaari fan waaw ku ma ne woon di nga dema dema dema dem ci àdduna ba ma toog nii nga ñëw nii di ma interroger nii tamit loolu nga xam ne yàlla sunu boroom kese moom moo ko man loolu rek ndogalu sunu boroom la waaw ñu ci delluwaat di ci santaat yàlla bu baax a baax a baax waa mbir mi moom lu ñu bett la ndaxte luy ñëw sa kaw moom surprise rek la mën a ñëwee sa kaw Euh, dañoo añ ba pare ñoom ñu xëy noonu dem fubali xale yi bi mu ñëwee jël na xaalisu ndékkeem ci man ma jox ko xaalisu ndékkeem ba pare mu ne ma pare sama xaalisu reer bi joxoo ma ko woon ma ne ko bu ci kanamee boo demee ba ñëw bi woon démb noonu ma boole ko bu tay bi nii joxaale la ko benn yoon mu ne ma waa maa ngi dem te ñëw boobu laa gëj a gis waaw ñu añ ba pare maag yaayam ak sama doom ju ndaw yooyu ñu tëdd ci néeg bi ci kaw lal bi di noppalu noonu boobu yaayam taal naañ ba pare nit mënatul a tëdd quoi léegi fi mu ne nii foog mu génn ci biti féexlu parce que moom dafa mel ni nekkul moom waaw da ko yëg ma ne ko ah kon léegi demal nga toog noonu ba ci kanam boo féexee man maa ngi ci biir waaw matul sax ay cinq minutes yooyu fi mu toog noonu rek ma dégg mu naan jam nan ko jam nan ko jam nan ko jam nan ko xam nga ne kii moom li muy wax nii lan la boo demee xale yi ñooy ne fii di fowantu fii ba kenn ki gaañ moroomam ñi ci des daw wala kenn ki tëdd nii man ma génn taxaw ne sama buntu néeg bi noonu laa taxaw noonu gis ki tëdd noonu ci tefes gi noonu gisuma kenn dem fa ma xoolaat nii bu baax ci laa gis deret ji nii di génn quoi ci put gi nii di sànni ci kaw mais man leen yéen kii dee na boobu sax xaw ma ne sama doom moo tëdd noonu ci tefes gi noonu ndax dañoo dem football ba ñëw mu changé mbuubu mu soloon sol beneen mayo ma daw ñëw si mi yëre bi ma soloon noonu ni bu ma àggee rek xëy na lii moo ko laxasee ci baat bi rek mën naa am li muy sànnee nii mën naa bàyyi ma simi sama yëre rek daw ci moom rek sukku ci noonu moom tiim moom mu ko tiimee nii non ne nag kii nii kii est-ce que bàyyi si yàlla quoi maa ngi commencé di am ay dut di xel ñaar ma ne xaaral ma ëlbati ko boor bi nii pour mën a xool kii ba xam bu baax bi ma ko ëlbatee ci benn boor bi nii laa ne kii kii Baye Cheikh la rek sama ndijaay bi ñëw ni ma kii Baye Cheikh la yaayam ji doon yuuxu sax ñun bi ñuy yuuxoo noonu moom ci lay doog xam ne kii nii doomam moo tëdd nii moom lañ def lii nii waaw mu def ko ay booru 4 heures jëm 4 heures demi jëm 5 heures presque mu ngi mu ngi commencé di guddi waaw mu doon mbir mu metti lool ma téye xale bi xam ne kii nii yàlla moom day def li gën moom parce que lii nii doy na waar doy waar goo xamante ni ba moom ku ko ëpp doole sax boo ko defee nii dafa naa ne du yàgg nu muy tooge dégg nga ma téye ko ci sama kaw mu ngi bëgg a wax ak man mënta wax ak man ma téye rek keneen ñëw dimbali ma aal ma beneen morceau ma jël dolliwaat ko ci pour man sax xëy na bala ñoo def ay cinq minutes yooyu mën naa am sapeur ñëw wala maam sax ku ma dimbali tuuti xaw ci am xam-xam tuuti mais comme ni ma ko fekkee ni mu tëddee rek te nit moom boo ko fekkee benn anam bu mu tëddee rek munoo waroo koo yëkkati parce que boo noonu mu tëddee noonu xëy ne mooy baax ci moom dégg nga mu ñàkk bakkanam ci ni ma ko téeree noonu waaw amatuma leneen lu ma mën a def lu dul taxaw jaaxle naa ma commencé jaxasoo yaa ngi dégg may dégg ñu keneen jàpp jàppanam mais man ba léegi nii mënuma teguma ko bët gisuma kanamam xaw ma fu mu jugee mënuma laa wax fii la jóge fii la cosaana wala ñi ñooy ay mbokkam waaw waaw. ñëw si kooku nga ñëw fekk sa doom ñu rendi ko si ban anam dañu ko jam wala dañu ko lan nan. waaw non jam moom defe naa ne ku ko dégg ku ne war ngaa mën a xam ni turu jam moom daanaka bënn la ñu xam mm. mun la jamoon tey puso day bënn. moom la jamee paaka tamit day bënn waaye loo xamante ne dañ koo xotti ci nopp bi nii la ko commencé fii ci kaw la xotti commencé ñëw ba ci put gi waaw ñi xaw a fekkee noonu te ñimewu ñoo wax noonu xëj na ñoom it dañoo ñimewu la wax nu mu demee parce que réaction bi man bi ma ñëwee uniquement rek fekk mu mu dëpp rek laan leen kii nii xeexul ak moom kii nii la ko féete boor bii nii bàyyi ko ba muy gerte wala muy am leneen lu muy def rek mu romb ko affaire bi rek romb ko rek continuer waaw. dafa commencé ci kaw la commencé wàcc ci suuf. waaw ab ndeyjoor la moom ki ko rey noonu ndeyjoor la moo tax mu féetale ko mu reyee ko boor boobu noonu waaw ci saa nag moom tamit deful fukki minute mu ñàkk bakkanam waaw waaw ci anam bu méttee méttee méttee waaw man ku ma waxoon lii sama àdduna du ko gëm mais yàlla nag ñëpp la fi nekkal. waaw boo defee ni suñu boroom kenn rek la fi nekkal na sa bopp yàlla ñëpp la fi nekkal waaw fu na lay teew waaw. ñaata at la amoon moom. waaw amoon na 19 ans la amoon. sama taaw da doon jàng la doon def waaw bi ba xool sama situation ni xam ne ñun bariwuñu ñaar lañu ñaar góor la am moom ak rakkam bu may dem géej du ma am ku ma jàppale ci gaal gi mënuma di jéggi wala may lu ne lépp ma bëgg koo def si biir. mu ne ma damay bàyyi jàng bi mu bàyyee jàng tamit xool na ne man li may liggéey nii li ma ciy am sax du bari yenn bari yooyu mu ni léegi naa la bàyyi ngay ànd ak Amadou Fall bu ko defee moom mu mën a dem feneen di ko mën a réaliser loo xamante ni mooy gën a sakkan mu dem ci fila tournée yi mag yi daaw moo ci mujj daaw un million quatre cent la yoroon ci loxoom bi mu campagne ba ñëw waaw waaw un million yooyu enveloppe boobu noonu fii la ma fekk maa ngi toog fii sama ndijaay bii nii mu ñëw ne ma am ma ne ko léegi demal nga xool yaag sa yaay lu ngeen di def ci enveloppe bi mu ne ma yow yaay kilifa yaay góor jëlal lii nga séddale noo koy séddalee nga xool noo koy def xaalis boobu noonu wallaay séddale nañ ci jox ci ñu ci war a jox ak ñoo xamante ne nii dañ ko doon laaj sérité mu ni loolu noonu moom li mu mujjee yor noonu moom la jël seddale leen loolu noonu ku ne sëy ci noonu ba mu jeex ci moom tàkk waaw kon kooku moom moom moo liggéeyal boppam bàyyi seex sonalul ay waajuram saagawuñu jànnewuñu musuñoo mere waaw man maa ko jur ba ni mu toll noonu mais yar naa ko ba ni mu toll sama loxo bi musuma koo yëkkati di ko dóor waaw musuma kaa dóor waaw yat musuma koo yëkkati di ko teg ci kawam kon nga xam ne kooku ñemewul yar ku ñemewul yar boo séenee paaka da ngay daw waaw mooy wane ginnaaw boobu mu wane ginnaaw mu bett ko waaw da koo def ko lim koy def ba pare daw bi mu dawee nag dégg naa ci la ko nit ñi jàpp waaw def li ñuy def waaw def li ñuy def waaw noonu la demee. mu nekk lu métti moom mi ko rey déggoon naa ne aussi mool la ñëwoon si dëkk bi bi mu ko defee loolu waa caare gépp nag man ne lii moom dootu fi amati parce que yaakaar naa mu ngi fi doog am fi waaw ñun yàgg nañ fi ñun daanaka ñun def nañ carrière fi ay vingt cinq ans ci géej wala ay vingt ans waaw man Baye Cheikh ñi ko xam man xamuñu ma xale bi moom dafa ñëw rek moom doon Baye Cheikh waxuma la caaree de mais Sénégal laa la mën a wax bokk parce que képp koo gisul tamit yaa ngi koy naxarlu yaa ngi koy ñaawlu ndax mbir mi ni mu demee moom moo metti ci boppam ñëw ba ci sa buntu kër yàlla nag moom moo namaloon ndaxte moo leen koo jël yóbbu ko rey ko feneen suul ko wala ñu sànni ko fenn foo xamante ni bu ëllëgee ñun dañ koy wër duñ ko gis ilaa yow mi diiri comme ni nit ñi di demee waaye yàlla def mu doxam ba ñëw tëdd sama bundu kër loolu damay dellu tamit foofu noonu di gën a santaat yàlla bu baax a baax ndaxte coono fekk ñu ci waaw waaw waaw. ñëw doon ñëw fekk mu nekk sa doom nga tiim ko nag am ban yëg-yëg si man maa xool ma xool loolu du woon barki waaw barki démb la woon defe naa man man mënatuma nelaw man xam naa bu lii paase nii war na yàllaat foog ma dem hôpital wala ma jéem a xool benn solution boo xamante ne dinaa ko pour ma gën a ma nekkaat ki ma xamante ne nii moom laa nekkaatoon waaw mënuma nelaw ndax loo xamante ne nii sa doom noo xaram tabaski barke sëñ Touba am na ñoo xam buñ ko rendee tey non duñ ci duñ ko lekk man bu ma yoree mala ba mu mag ñoom xam nañ ko ci man waa kër gi nii mala rek du ma ko rey waaw wala buñ koy rey ñoom pour def ci ndawal wala yooyu noonu damay génn dem sama yoon wala ñu jënd ndawal ci àll bi ma doog koo lekk mais nit bu demee ba nam ma di commencé di rendi xale yi liñ leen di digal baaxul de waaw liñ leen di digal ñu koy jéem wala ñu ciy jéem a dugg amul benn njëriñ boo lëgee suñu réew mi nii ñun ñoo ko mën a yoral suñu bopp mais bu ñu reyantee suñu biir day gën ñaaw du ñu dem fenn fi ñu taxawoon la ñuy taxaw rek waaw nañ jéem a def ci xale yi xel mu rafet ak xel mu sell di leen jàngal àdduna ñenn ñi mën a xam ñi seeni i baay lañ ñii seen i yaay lañ ñun la moo mën a xam ne kii sa bàjjen la wala sa tante la wala sa mag waaw ñu mën a am respect tuuti bu ñu génnee ci biti nan lay woowaa àdduna waaw nañuy woowaa àdduna ñu toog di waxtaan ak xale yu ndaw yi lii nii du fi yam de bu subaa da ngay dégg beneen boo xamante ni mooy gën a métti bi téeméer yoon yow dangay ngay mujjee fàtte sa bos waaw. nañu tax bii ni mu mettee moo waral tax tamit ñi fi dëkk waa gox bi waa caaro yi ñi ko yëg ñëpp daw ñëw ne lii moom doot fi amati parce que ki ko def tamit dégg naa mujj na ñàkk bakkanam. waaw ki ko def moom dégg naa dafa mujjee ñàkk bakkanam man mi wax ak yow ni ba léegi nii gisuma ko caaro yi dafa rëy parce caaro yi boo wàccee rek yaa ngi biir caaro yi nga jaar boor bii nii ba ca Cap Vert usine la bokk. nga jóge foofu dem ba baax Baxdaad ci biir loolu lépp ci caare ñoom ñëpp man ay nit kese laa gis dem naa benn instant gisatuma sax suuf si ay nit rek ñoom laay siin fu ne nit dafa jóge waaw ndax association bi fi nekk jàppalante bi fi nekk am naa lu ma metti lool lu ma metti lool mais bi ma leen gisee lu baree bari wàññeeku na ci man waaw boobu ba léegi nag ñu ngi fi toog sama gars yi ñoom ñëpp a ngi fi toog di ma jàppale di mu defal waaw maa leen sant sant leen bu baax a baax waa Caaroy man aw ma seen fay waaw ndaxte bu doon man kese kese lii man man du ma ci man dara waaw dama ciy jéem rek waaye boobaa tamit du ma ci man dara parce que kenn ñaara ko man waaw mais mbooloo moom moom mooy doole moom waaw oui yéen ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm waaw parce que seen liggéey moom rafet na vraiment parce que li ngeen doon liggéey bu fekkoon dana amul benn njariñ wala du am dara loo xamante ne mu ñuy yee duñ ko seetaan wala ñu koy déglu ba yéen ngeen di ñëw à la fin ñëw di ñu ñu ciy toog man maa ngi lay seetaan lu bare bari di la gis chaque émission yu bari dama koy suivre waaw ñu ngi lay ñaanal yàlla gën a defal jàmm waaw. xew-xew bu metti dal ci sa kaw nan nga ko yëgee en tant que waajur man dama taal añ bi pare sama yaram bi tayal ma tëdd ci sama néeg. gis <laughs> yaay sama yaram ni am lu mu yëg ma jug tànqa ndox teg nee toog gis yaaga ñu naan am na jam bi wéy ñu ay regay ay regay sama ne dama politi sama noppay rek ma yuuxu ma ne woy dareej ji woy dareej ji way dem leen dimbali kële dem leen dimbali kële si la am ku ñëw ni ma kii bàyyi si la ma génn rek muy sama doom ñu fekk ñu rendi ka moom ñu fekk ñu rendi ko waaye Cheikh nag dëgg woon ku baax xeexul xuloowul da daan dem di liggéey dem campagne bi dem ay Gambie fépp la daan dem yu ñëwee yu ñëwee nar du si laal ñu daan ma am teg ko si kaw lal bi dama yaay am moo sama ndimbal mooy sama yaakaaru àddina ba man ko yàlla yëg bi nga ñëwee tiim ko muy sa doom yow bi ngay daanu sa fekk xamoo woon sa doom la. xamoo ko woon xamoo woon ni moom la maa gis deret ji bari rek taa bari xamoo woon ni moom la papam ba papam tudde si kawam lay soo nga xam ni moom la. ma ñëw tiim ko ma ñëw si kawam. ma defan deewul ma di ko dippan defan deew ne ko dee na bu yàgg. Mm-hmm. nekk lu métti na. waaw mu métti torop sax torop. kenn ku mujjee woon gis loolu di am. xam hmm. nga pare moom du fi añee kër gu mag yi lay añee du lekk sama añ sax sama kër gu tey ma newoon foofu lay añee mu ko ñëw daan. ban añee pay mu ñëw ni ma yaay may ma benn jus jox ko benn jus mu naan dem dinaa ko mujjee gis ba ni muy deewee noonu xanaa hmm, hmm. lu métti sax lu métti métti sax rendi ka bu métti rendi Hmm? lay ci sa doom. dimbali rek dama jaaxlee mu fajal ma. demee di campagne yee du ñëwee du ma amalee dara ma woo ko ah man de yor dara. gis nga mu mu dugalal mat ma dem jël. voilà mbokki téléspectateur wu 7TV yéen ñi nga xamante ne taamu seen émission xew-xew tey lii leen lañu indiloon fii nga xamante ne mooy Caaroy quartier Baye bu doy waar bi ñuy wax Baye Cheikh Diop moomu nga xam ne moom moo fi ñàkk bakkanam beneen moroomu moolam bu ñëwoon def si campagne mujj ko faat si anam bu doy waar lool lool lool ñu duggoon nag dem fa yëfe xewe xool sa kër ga nga xamante ne fa la dëkk dégg ngeen papa jeek yaay jeek maam yeek mbokk yëpp li ñu wax mu nekk loo xamante ne lu métti lool loolu la ñu ngi leen di massa bu baax baax ndax c'est la première fois lu mel ni am Caaroy waaye ki nga xamante moo def jëf jooju tam bi mu ko defee ba pare bi mu dawee dugg ci benn néeg nee dañ ko fekk foofu caare gépp mabb ba ñëw mujj gi jëflante ak moom ba bi sappo pompier ñëwee pour jël si ki nga xamante ne moom moo ko jëf-jëf jooju la ci yoon bi la mujj ñàkk ba bakkanam moom itam muy nekk ñaari xale yu ñàkk seen bakkan mu mel ni nag yi dafay bëgg a bëri Sénégal parce que boo gisee maam ji dégg ko ni mu ko expliqué nee na yaa 32 ñu rayoon ki nga xamante ne ni goro la si moom ñu ne déet na waaye 30 ñu rey ki nga xam borom këram waaye tey ñu rey sëtam mu nekk lu metti looloo te boobu ba léegi nee na yooyu yëpp amul mujjul fenn lu si mënti doon rek mu nekk ay métiers yoo xam ne dégg ngeen li nga xam ne moom moo am fële si seeraas itam Abdou moomu nga xamante ne moom itam ñu rendi ko rendi bu métti moom itam mu bàyyi soxna ñetti soxna ak euh, juróom ñetti soxna ak juróom fukki doom ak benn lépp nekk ay ñaawteef yoo xamante ne suñu ndaw yi léegi dañ koy faral di jëfandikoo lépp lu si mënti doon xale yi di fooye arme te arme moom dafa doon loo xamante ne lu doy waar loolu la ñuy ñaan nag ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy njiit ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax ci xale yi ndax xam ngeen ne am na yoo xamante ne ñaaw na 19 ans fleur de lage nekkoon soutien de famille di daw di jëw di indi ay waajuram ñu rayee ko noonu ray bu ñàkk sax kersa ñëw bu metti ñu ngi koy massawu di jaajëfal ñëpp rendez-vous incha allah maa di lay doon à 13h30 si xew-xew Pape moo nekkoon si caméra bi Pape Diop maa ngi koy jaajëfal baax a baax la meen si montage bi Papis Mbaye Pape Mendy ñoom ñëpp si coordination bi jërë ngeen jëf rendez-vous maa di lay doon à si beneen xew biir 7